détenus tey dañ ci nekk ay dañ ci nekk innocent dañ ci nekk innocent parce que mooy tax parce que ñun bokkuñu benn parti Gris Bordeaux bokkul benn parti c'est pas un politicien mais man Médina laa far Médina laa bokk Médina jaral na ma man tey bu weesoo carrière sportive may def nii tey Médina jaral na ma wàcc ci tali bi Médina jaral na ma lëkkaloo ak nit koo xam ne ëllëg lépp lu muy dox ci àddina mooy pour Médina dem ci kanam la nit kooku nag yàlla da ko dogal ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu nekk l'homme idéal pour la Médina ma ànd ak sumay nit ànd ak sumay xarit ànd ak sumay collaborateur pour tey ci élection yii fas yéene ko ci jàppale ànd ak moom collaborer ak moom pour fair avancer la Médina loolu moo waraloon tey suñu suñu rencontre bi am na ci lu bëri loo xam ne tey nii Mountaga Dia dina ko expliquer te nag fiiruma benn question ah. bu saa waay waxee ba pare je suis pour déglu leen question bu ma nit posé rek danaa tontu jërë ngeen jëf waaw bisimilah. gisee benn mbër bu nga xam ne leader la bu nekk ci quartier xëy day taxaw ne dafa bëgg a nekk maire boo xam wala boobu pour défendre boo xam loolu defe naa ne waa la ci côté boobu waaye nag euh, kon loolu da si remercier defe naa tamit lii am na solo trop si mbër yi tey mu wane que ni ñoom ne ku ñu nekk ni dañu war a bëri seen carrière mu jeex rek ñu rangé wu toog quoi war nañu mën a am seen mot à dire seen dëkk moo xam dëkk bu ñu man a dëkk nag moo xam Medina la Bambey wala Albu Ndàngal wala fu mu mën a doon l'essentiel que nga nekk un bon citoyen pour service sa dëkk après sa carrière te itam xam naa ne sa carrière jeexagul mais la ca des bareetul yàlla na def nag ak jàmm li ma lay laaj nag man mooy parce que bi wax ji jógee ñu ne Gris Bordeaux dafay aspiré bu nekk meeru Médina ñu bëri dañu wax ne Gris Bordeaux Cheikh Tidiane Ba moo nekk ci ginnaawam am ñeneen ñoo xam ne wax nañ ne Gris Bordeaux ba mu demee ministre de la dalaw ba fa jógee ba tey dafa sa communication par rapport ak avant loolu dañ daan dégg kii daan dal ci kaw état daan dal ci kaw CNC ak état mu mel ni ba nga jógee ca sa audience ba yow mbër yi ca ministre ba boobu ba tey kàddu gi dafa soppi ko complètement ndax loolu mën nga koo dëggal est-ce que Cheikh Tidiane Ba moom ma sa nekk sa ginnaaw ba nga xëy day taxaw ne moom nga mujj rejoindre ci li ci liste benn bokk yaakaar wala déet. Euh, ak lan moo tax tamit. est-ce que Bamba Fall contacté na la parce que nee nga kilifa yi Medina di laaj ma contacté du ma du wax ne diw ak diw ñoo ma contacté. mais li li wóor ba wóor mooy tey. Gris Bordeaux communication moo ñu changé. parce que man tey man tey foofu nga wax noonu. ministre de xam naa ne sax question yi yaa ma koy posé parce que yow doo nitu jàmm. doo nitu ay nga quoi. mais tey li wóor bu wóor mooy foofu ma doon dem tey ñu invité woon fa foofu. ñu recevoir ñu foofu man ak sama ay naw la ñoo fa àndoon. dew mu for man rek. concentré toi xam nga loolu moo am importance ñi fa demoon tey te li ñu fa daxoon dem tey Sénégal yëpp xam nañu xam nga du woon dañ fa demoon pour raayante dañ fa dem pour waxante lu baax le ministre de la justice moo juumoon ci ay propos wax ak lu làmb ay wax yu dérangé ñëpp particulièrement ñi ñi nga xam ne tey ñooy les acteurs wax ko wax ñu ko ñu naqarlu ko trop bi ñu ko déggee mu wooruñu jégalu dañ maa leen di jégalu nii ak nii laa ko bëggoon waxee lii ak lii ak lii da nga ministre de la république un troisième personnalité du pays soo woowee ci loolu tey li ngay mën a def rek mooy xam ne nag làmmiñ moom xam nga accident wala làmmiñ fu ne ku ne lay daal mais Gris Bordeaux mënu changer ci communication tey nee naa la je suis apolitique mais Médina jaral na ma wàcc parce que lii affaire de patriotisme la war na képp ku nekk ci quartier ci domaine boo mën a ne yoon daf la may lii du rek ak loo mënti nekk enseignant bi caméraman bi sëriñu daara bi koo mënti doon yoon daf la may lii tey sa quartier nga fexe bokk ci instance dirigeante loolu devoir la mais Gris Bordeaux communication mënul changer tey laa gën a mën a toog gis loo xam ne naka sutul noonu état def ko wala ko mënti doon tey bu ma ci amee occasion déploré ko loolu c'est gris mais gris dara ci àddina munu koo changer encore une fois maa ngi lay remercier ci question bi xamoon xam euh, naa temps mu gaaw. parce que Cheikh Tidiane ba nga àndal. Mhm. léegi bu yàlla defee bu gañe mairie ci turu benn bokk yaakaar. Mhm. ñu ngi wax waxu muy ruumandaat naan président Macky Sall day laaj troisième loolu. Ah, non foofu xam nga yow yaa ngi. yaa ngi yaa ngi. yaa ngi jaaw yow ñu. localité la ñu wax. Ah, man nee naa la man ah, nee naa la. naa lii tey man tey ci àddina Gris Bordeaux lii rek moo ko jaral nit ñi du ko dégg lii rek Medina rek moo ma moo tax tey parce que tamit am na ay jotaay yu bari yoo xam ne bu ma caméra yi dëppee nii c'est la lutte sama domaine mais Médina képp kott donc moo ma mën a jaral lii te dama ci fier nee naa la je suis pas politique politicien benn parti laa bokk muy parti bu ñu naan Médina te képp ku ma yaakaar ni am ci yow confiance nga wan ma quelque chose boo xam ne tey permettre na ma ma wàcc ci terrain bi accompagner la pour tey nga jël Médina yóbbu ko fi ma bëgg te tey ëllëg sax bu ma tey bu ma gisoon tey nii jàppale Cheikh Tidiane ba tey bu mu téye mairie bi ba ma gis naka sudul noonu sax parce que Seydi amul lenn lu muy obligé ma taxaw yuuxu ci kaw parce que man noonu laay fonctionner mais yaakaar parce que nag naa la benn affaire gis nga nit yàlla mooy sàkk doomu aadama charisme dafay am ci nit sopplu dafay am ci nit leader dafay am ci nit am na nit ñoo xam ne ñu ngi gouverner te barki xalifa Malik yàllaa ko bind seen jël mais charisme dafa am ci nit soppalu dafa am te nag naa la benn affaire coow lu muy bëri yëpp l'homme idéal pour la Médina c'est Cheikh Tidiane Ba te bis bu ci yeggee ngeen xam ngeen ngeen di xam loolu te barki Cheikhouna na waxee wu ma ko suma teyaayu bakken xam nga Sénégal dafa am habitude booy wax ñu yaakaar ni ñu jëlee ko fu ne su ma nammee di yëkkati ay kàddu di ko wax ci jëmmi nit ndax bëgg lu ko neex te nekk lu ma gëm yàlla bu ma ci am ndam li may wax nii li may wax nii lu ma gëm la te ñaar fukki dërëm taxul ma koy wax ci kàddu lu ma gëm parce que man li ma yóbbu sama kër Cheikh Ba mënu ma ko jox man li ma gëm sama life maa koy liggéey mais dañoo bokk vision bokk gis-gis ma xam ne projet yi mu am ëpp na sax Medina barki Cheikhou Tidiane projet yi mu am laa la wax xajul ci Medina weesu na Medina kon kooku nag Medina yi Medinois yi dañu war a conscient suñu yaay yi suñu papa yi suñu frères yi suñu sœurs yi dañu war a conscient ni

zone yooyu loolu am na am na am na suñu ay xarit suñu ay am di jàmm yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi xam nga am na suñu ay am di jàmm. Hmm? waaw ma góor gi góor gee dëkk ci gi Adama John bi ma jur moo dëkk ci même fi laa dëkk waaw ah, fi laa hôpital Abbas Ndao laa juddoo. la. Ah. dugg naa benn baaw. Ah. gis ñu naan arrêt. loolu amoo ko la rek. parce que nga ñëw parce ci quartier. ñu honoré la parce que damay wax ni tey lii tey honoré la nga dëkk ci quartier dem mbaaw ñu futal la fa arrêt kuy ñëw fa na arrêt Gris doo loolu fierté la te loolu dañ ci am mbégte trop en même temps di nuyu wàlla waa mbaaw fa la njaboot nekk ñu ñëw fa jugee Medina juddoo fi yaroo màggee fa dem fa ñu taataan ñu jël ñu def ñu kon doom buñ fa juddoo kon loolu fierté la bërgi dem yaa ngi may woo di ma ko wax ma am contentement te am na foo xam ne boo fa yeggee arrêt Gris Bordeaux la wax Encore une fois, je vous remercie davantage. Hein. De nuit, toute la presse, je suis très content. xam nga di nuyu di nuyu kat Malick Ndoye di Pape Mbaye di nuyu Fallou mon frère mon jumeau xam nga membre CATB la nekk ku jàppale Cheikh Ba